ñu leen di nuyu di nuyu surtout waa Somm di nuyu waa gox bi nga xam ne goxu jàmbaar la gox bi dafa am ñaar ñu ñu duppee Omar ñoom ñaar ñëpp di professeur ñoo amoon Omar Sankhare am Omar Ndoye dañuy taxawee suñu xel faaw mu dem ci suñu professeur ba ñu ñaan yàlla yokk yërmande ci moom yaakaar naa ni fierté la que gox bi di am doom yu mel noonu yàlla dogal na ak bi may am bac ci koñ bii laa dëkkoon donc xam naa ñi fi dëkk xam naa li fi ne li ñu tax a ñëw nag xëy na am na lenn loo xam ne euh, madame Maymouna Dieng jot na ko wax Oui, les ma surtout moi, wuyu ci invitation bi nga xam frère le professeur Omar Ndoye avec mon collègue. Il y boole le bu de ñu nous, ñu engagement cause humanitaire ay cause citoyenne te également ay cause politique yàlla dogal na campagne bi nga xam ne ci lañu ñu jóge ma nekk maire maag moom yi ñoo ko àndoon jamono yooyu campagne bi dama ko def ci jaga maanaam doom yi ma doon jëfandikoo moom mi moo leen daan jox ngir may man di tenir di taxaw suba jëm chaque jour 3 heures du matin moom mi moo bokkoon ci ñi doon yombal kon moom itam bokk na ci ñi ma war a gërëm waaye moom itam ma xamal ko ni ko gërëm naa la lool ni ma gërëmee ñeneen waaye yàlla ma fi teg ndax kees mom dañuy bañ loolu dégg naa loolu kees moom dégg naa dañuy bañ ku ne ma fi ma fi rek fi ni xarit bi nga xam ne fekk na yëpp ma ne ndax fekk na yëpp euh, yàlla moo ne nguur maa ko yore te maa koy joxe maay joxe maay rocc lu ma teg nag teggi ko teg leneen lu tegul woon boo ko gëmul moom yàlla wëlbatiku ne la j'ai tendu ciel sur vous et régler la balance de toutes choses mais si ko bëggee face vous ne vous pouvez tendre des pièges monter des combines mais un beau jour j'opère un renversement de situation et vous vous demandez si ce que vous aviez vécu était réellement bon kon Papis li ngay taxawal dénk ko suñu borom mu yoreel la li ajuwul ci yow li aju ci yow Pastef Madame. madame, kenn nous dans une société da nga liberté la politique c'est une liberté en mouvement kenn ku liberté il y a des droits fondamentaux qui am la société da nga la liberté de conscience da nga une liberté d'opinion Nous y ci une liberté d'expression manam lool ngay xalaat nga man koo génnee nga am aussi liberté d'association mooy li nga li nga doxante liberté boobu nga am ci taxawal association moom nga jëfe ndax nangu boo nangu ne sénégalais bu libre la mais boo amee liberté d'association nga am liberté de manifestation mooy organiser pour fësal say xalaat lii ci la bokk loolu nag ñun ñëpp dañ ko war a sàmm moo tax rafetal bi am ci biir Sénégal dañu ko war a ndax àdduna bi ak sous région bi ñëpp xam nañu ñaawteef yi fii am ak jafe-jafe yi am ak terrorisme bi fii am kon lii nu am ci man di jokkoo ci liñ bokk yaakaar naa ne am na ñeneen ñoo xam ne suñ ko amoon xëy na giraawaay yi nekk di ci nekk kon professeur Papis Ndoye loolu euh, la jàppoon yokk nañ ko tey

ñu bokk parfois ay jafe-jafe yi ñuy dund ñooñu dañuy war di man di daje ci ay bërëb di diisoo comme ni ko docteur Ndiaye wax sa invité yiñ fi jiitu yëpp niñ ko waxee ñun kuñ ci tudd dañ naan ci suñu frère la wala suñu sœur ñii nga xamante ni ñoo nekk ci au conseil bi ñoom ñëpp relation yooyu la ñu am ak ñoom ñii nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi ci dëkk ci Thiès kenn ku ci nekk relation yi ma noonu la ñu am ak ñii nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir Thiès moo xam ñu nekk des conseillers municipaux moo xam ñoo am yeneen responsabilité ci yeneen bërëb loolu la ñu bokk ak ñoom tey dafa am loo xamante ni moo tax sa xëy ma ak si waxtu bi mooy démb ak tey yéen ñëpp yëg ngeen consultation gratuite bi nga xam ne fondation Servir le Sénégal de ko doon def nga xam ne la première dame bi nga xam moo jiite fondation boobu ah yóbbante na ci man xamal ma ni mënul teew ci jëmmam ndax dafa war a accompagner président fële à Washington waaye nee na bi dina ñëw topp sa ma dalal leen te di leen gërëm na ndax maanaam seet nañ fi ñu bëri faj nañ fi ñu bëri jox nañ fi garab ñu bëri loolu comme keneen defalu leen ko woon ci diggante bi maanaam ñi leen ko defal li ma war en tant que kii wax au nom des Thiessois mooy na leen jërëjëf je pense que suñu jiitalee l'essentiel juboo dina mën di am déggoo dina mën a am ci lu bëri kon Papis na nga xam ne nanu nekkee woon ak yow tey lañu gën a nekkee noonu ak yow nekk ay waay lépp loo xamante ni yaakaar nga ne mën nañ ci di gungente ngir doomu aadama yi man ci jariñu mooy askan bi jàppal ni mën na ne nañu waxtaan ci loolu li ci des li ci des tey damay profiter de cette tribune parce que l'occasion fait le larron damay wane ni maa ngi sama kër euh, il nous faut changer la façon de faire la politique au Sénégal maanaam defe naa ne ñi suivre dialogue national yëpp dégg nañu ma wax président de la république ne ko bi may doog a ñibbisi jóge Amérique dama manière ko façon bi ngay defee du noonu bul nangu ku la wutal non ndax sama xarit la ñi xamul nak xamuñu mais moom xamna man xamna na te pourtant bi muy defal nguuram ma ne bokuma te sama xarit la mais téwul ma xélal ko ne ko je vous invite à vous méfier des politiciens carriéristes et autres affairistes véreux

ni mu dogale ni ba keroog yàlla di ko dogal maay meeru Thiès noonu la dogale ni moom mooy président Sénégal loolu loolu lu leer la kon ci li ñuy li ñuy kon tey jii maanaam ci li ñuy xuloo dootul nekk loolu loolu lu féete boor la ba pare kenn ku ne am nga sañ-sañu ne dama bëgg a nekk maire kenn ku ne am nga sañ-sañu ne damaa bëgg a nekk président wal damaa bëgg a nekk député ku ne sañ na bu boobaa ñëpp rafetal jamono bi ndox mi te te Louga amee problème daf maa fekk États-Unis li tax ma il faut changer la façon de faire la politique moment boobu nit ñi naan lañu bëgg abi nit ñi ndox mu ñu toggee lañ bëgg daf ma fekk ci États-Unis dama créer dara tudde ko bu kenn xeet dara ma ne ku am kon ku am citerne joxel ku am paan joxel ku am siwo joxel ku am potu ndaa joxel ndax ki nga jox potu mu naan jàppale nga ko te ci moment boobu loolu rek moo am solo moment boobu amul solo nga ni ñii waroon defar tuyau bi danoo yaafuus wala xereñuñu wala nangam parce que moment boobu nit ñi am bëgg naan naan rek lañu bëgg ndax dañoo mat je pense que en retournant à l'essentiel dinañu man di waxtaan ci li am solo di mën a déggoo ci li am solo yi nga xam ne nag nit ñi déggoowuñ ci su jongante jotee nit ñi dem jongante mais def ko ci jàmm def ko ci dal def ko mu ànd ak civilisation suñu paree su dee élection député nit ñi bu ñu dajee assemblée nationale di jiital l'essentiel di teg l'accessoire fële waaye nag comme dañu sànni ni clin yi maa ngi ñaan xam nga élection bi nu jëm moom du élection président élection député la donc maa ngi ñaan waa Benno bu Thiès di ñaan mouvement bi nga taxawal tey Papis ak yeneen mouvement yi fi nekk yëpp ñu àndandoo ak fal askan wi defar liste bu ko defee président ci boppam xam ne il est président ñëpp ñi nga xam ne mën naa leen xam ngeen ronk mooy mooy grappe yi ronk ñi ma mën a ronk ñëpp naa leen ronk nag waaw bu ko defee askan wi ci boppam mën a am liste boo xam ne bu ñu nekkee majoritaire à l'Assemblée nationale président comme moom mooy président bu boobaa ñun maanaam assemblée bi li ma wax mooy nekk du fi nekk pour di xeex président de la République assemblée dafa war a nekk fi pour nekkal fi askan bu fi guvernement nekkee bu ko waree contrôler contrôler ko bu fekkee loi dafa war am bu waree defar loi defar loi su su projet de loi bu jógee ci gouvernement bi ñëwee bu baaxee ñu wote ko su baaxul ñu bañ ko voté loolu moo war a am assemblée loolu lay jariñ président de la république joué rôle président assemblée joué rôle assemblée waaye Papis leneen li waxtaanu biir biir la maa ngi yow Bola ke jarimu dan dole jarimu Jangan dijarimu Kingdom.